mbokk yi teewlu seen chaîne préférée seen njëriñ TV ñu leen nuyu di leen jaajëfal ñëwati daal ci beneen vidéo bu yees jëgtal leen kàddu yi nga xamante ne ginnaaw bi mu génnee ca prison Rebeuss moom imam Cheikh Tidiane Ndao yëkkati na ko moom daal nee na amul dara lu muy rëccu ci kàddu yu ñaaw yooye nga xam ne tegoon na ko ci deru Ousmane Sonko àgg na sax di wax ne bu fekkoon ne situation bi nga xamante amoon na fi bu fi amaatee dana defaat wala waxaat lu ni mel may rappelé ne moom amul benn situation bu fi nekkoon moom moo yëkkati ay kàddoom yëkkati kàddu yu ñaaw jiiñ Ousmane sunk loo xam ne ñun sax duñ ca àgg ndax la mu waxoon ñëpp dégg nañ ko muy kàddu yoo xam ne ndaw mi jàngul ferul ijji sax du ko def waaye moom mi nga xam ne day woote imaam waaye di wootewoo ak jàngalekat waru ci woon fekk moom ci kàddu yu ñaaw yooyu nga xamante ne moo farandoom boobee di ba moom sax bind na benn tagg ak way boo xam ne ma ngay tagg bajaxate jaxate naan ko muñal ndax dañ ñoo tooñ ba noppi tëj ñu kan ci mbokk yi ñuy déglu fàttali na tooñ yi nga xam ne Ousmane ko tooñ na ko bajaxate jaxate ak Cheikh Tidiane Ndaw mi nga xam te ne génn na def conférence de presse mel na ne amuti mbokk bu amoon ay mbokk dana delluwaat ci rek ruqam waaye bu fekkoon ne tawxid bu muy woote mi ngi ci moom gëm yàlla ak wóolu ak yaakaar bi dafa war a jàppee mbir mi comme nattu mu daal di jéggalu askan bi jéggalu nitu daara yi waaye jéggalu usmaan Sonko mi premier ministre ak président de la république du Sénégal donte sax bu fekkoon ne dañ koo tooñ ngir nag la muy woote woon ni imaam la waroon na jéggale wala mu jéllale waaye kàddu yi mu wax gëw ma mu waxaat ko ndax bu fekkee ne dégg ngeen conférence de presse bi moom du mësa a waxati ndax dara xew fi woon ba tax muy addu kàddu yi ñaaw yooye nga xam ne tegoon na ko ci deru Ousmane Sonko. jullit nag ak moroomam dañoo war a jéllale di jéggale rawati na ko ne dañu ne imam la muy jité mbolo wara wax deug wara taxaw ci deug waye gëwuma cheikh tidiane ndaw mi mu yëkkatiwaat ay kàddu yu ñaaw yooyu di tek ci deru ki nga xamne ne premier ministre ousmane sonko ndax régime bu bees bi yor ñu wote juk jubal ak jubanti, askanu sénégalais yépp rawati na ndaw ñi adhéré ci ngir bëgg soppi réewum sénégal xar kanam ga nga xamone amon nako ñu ko ñu ko ci ginaaw bi ki nga xamne ne Macky Sall di boom di bumi ci réew mi di def lu ko neex ñaata ndaw lañu faat ci buurug Macky Sall ci fukki at ak ñaar yi nga xam ne na réewum Sénégal lolé nak gas jeexna Macky Sall jaral nako mom mu dem fële ci Maroc tok japp ñamburam té dotul addu ko jëmele ko ci réewum Sénégal ndax am leneen lu doy conscience am du tranquille ko ba keroog muy faatu ndax ñaata nit ñoo faatu ci nguuram ba tay mom Macky Sall nee du balu ak Sénégal yi way du ci ñoom tamit mën nañ ko bolé rek ci Cheikh Tidiane mi nga ne wax sax gëmuko gëm ni ne kàddoom dootu ko yëkkati jëmale ko ci premier ministre Ousmane Sonko tuumaal yi nga xam ne def na ko ci moom bu dee jullit la dafa war a baalu ak kii di président Ousmane Sonko ndax it moom moo wax lu ne weng ba ñëpp xam ne moo tooñ kon nag dafa war a noppi.